bu nu esquissé lay doon ñu fas yéene feggoog euh, ci kanam tuuti ak euh, Seydina Omar Ba moom la fas yéene dalal bu nu esquissé lay doon ci xëtu yéenekaay yeeg euh, lu yéenekaay yi xëyee li Sénégal yendoo démb fanaanoo ko ci xibaar Seydina Omar Ba ñu ngi lay nuyu. ñu lay fay Abdoulaye naka suba si. alhamdulilah Walf Quotidien lam ñu xëyee. waaw Walf Quotidien dafa xëyee am na taxaw seetlu jëmale ko ci lu jëm ci wàllu parrainage citoyen yéenekaay gi dafa xëyee ne dafa am ay parti yoo xam ne nii wala dafa am ay ay yoo xam ne jamono ji dañu am ay jafe-jafe ngir am parrainage nooy ay parrain noonu la ko yéen a xëy fësal li ko nag moom moo di Euh, parti politique yu mag yi fi ne muy muy muy mel ni Ousmane Sonko Amadou Ba Khalifa Sall ñoom ñii ñëpp am nañu ay député ko waroon nañ ci yem waaye dañoo préféré dem ay def ay parrainage citoyen loolu nag nga xam ne ay candidat daal di wax ne dafay dëddu lekk naan ngir jàppale kon euh, militant détenu yooyu nga xam ne ñoom lañu jàpp ci kaso bi noonu la ko yéen giir Walf Quotidien xëy fësal yéen kaay bi di le quotidien yéen kaay di le quotidien jafe-jafe yi nga xam ne njàng meeg njàngal mi ñu koy dund jamono ji yéen kay gi ne neexul ba neexul waaye école sénégalaise bu fekkoon dañ ko doon noté Euh, note bi du baax ndax gis nañ ne fële ci diwaanu Kolda am na ci lu ci toll téeméer ak ñaar fukk ak ñeenti jàngalekat yoo xam ne dafa manqué nga dem fële ci diwaanu Matam ñu ngi toll ci juróom benn téeméer ak juróom nga dem ci diwaanu Matam toll nañ ci juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent ci ay jàngalekat yoo xam ne dañoo manqué ci diwaan boobule mu nekk nag ay jafe-jafe yoo xam ni njàng mi njàng mi ngi koy dund jamono fii ci biir réew mi euh, ci réew mi lañu desandi ak yoor yoor yoor yoor dafa xëyee de su Ousmane Sonko jël na dogal ne da koy su maanaam da ci sóobu jël na dogal wax ne dafay du lekk ak naan ngir jàppale ay maanaam mm, ay mbokkam patriote yi nekk ci kaso bi noonu rek ko yéene kaay gii di yor yor xëye fësal 24 euh, heures ci xëtam yéene kaay gii di 24 heures xëye dellu siwaat ci wàllu boulangerie bi nga xam ne nee nañ bu deful ndànk ay jàppante yu sax dana fa am mu war a dox ci diggante ñi nga xam ñoom ñoo di euh, boulanger ak nguur gile bu fekkente ne ñoom dañ jël décision wax ne dañoo fas yéene du dem grève dañu fas yéene euh, maanaam yokku yokku njëgu mburu mi ndax courant bi dafa cher gouvernement bu Sénégal nee nañ déet nee nañ daal fu mu toll ni ay wax yokku yokku moom mhm. xel xalaatu ko noonu la ko yéen kaay gii di 24 heures xëy fësale yéen kaay bi di source a yéen kaay gii di source a ni Ousmane Sonko door na yëngu yëngal noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale ab dogal jël la jël wax ne dafa fas yéene du lekk ak naan toog ndox la wax ndootu ko jàll si bulim ngir jéem jàppale ay naatangoom yi nga xam jamono a ñu ko yéen kaay gi source a xëy fësale ne kaay gi di critique xëyee amalab taxaw seetlu jëmale ko ci euh, euh, gi ne neexul ba neexul waaye loolu ak yàq dëgg la euh, ndax te ñaari coali maanaam coalition Yewwi Askan Wi nañu tàmbale woon bu ñu ko àggale woon kon ñàkkul na gouvernement bu Sénégal duñu xalaat sax ne dañuy des ci nguur gi noonu la ko yéen gi di critique xëyee fësal dox ci digganteem ak suñu naatangoo yi moom Serigne Abdou Bara ma parrainage bi daal faw ñu dugal ci ab caution ndax gis nañu candidat yi dañoo tàmbalee bari

élection présidentielle yi ñëw bu yóbbu askan wi seen xel dal ci hmm. te xam ne élection yu jaar ci yoon lay doon kenn du ci am benn par parlo noonu la ko yéen kaay di Sud Quotidien nga xam ni Pape Demba Bitèye doon na ko amal fële ci Cap des Bus moom nag gis na ne lu jëm centrale ak gaz bi daanaka noppi ne te am na njottu grafit du yàgg dara Euh, daañu fas yéene daal courant maanaam courant bi daal daañu ko daañu ko am ci lu mu mu gën a mucc ayib noonu la ko yéen kaay gii di l'évidence xëyee fësal yéen kaay bi di euh, turbine yéen kaay gii di turbine dafa xëyee dellusiwaat ci ministre des finances bi nga xam daanaka yëkkati ay kaaram fan yi génn wax ne comme comme Sénégal daanaka gongo dafa jaar ci yoon yéen kay dafa xëy samp laaj bëgg xam moom Moustapha Ba mi ci ban Sénégal ban Sénégal lay wax ndax Moustapha Ba mi Sénégal dëgg la wax am déet noonu la ko yéen kay xëy ab koom-koom naree baaxee ba nga koy delloo njuk ba nga koy te fekk na askan yi nga xam ne dëkk fi ci Sénégal mënuñoo lekk mënuñoo añ ba añatuñu naan reeratuñu Euh, añ moom wa euh, ndékk moom waxaale wuñ ko noonu la ko yéen kaay gii di la tribune xëy fësale Seydina Omar Ba réew mi quotidien yéen kaay gii di réew mi dafa xëyee dellu si waat ci conflit israël palestinien président Macky Sall yéen yàbbi ci leen mhm. daal àndul ngir daal ñuy jël ay takk der euh, dire maanaam maanaam àndul daal ci jàppante gi dox ci diggante israël ak palestinien yi noonu la ko yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy fësale yéen kaay geneen le soleil yéen kaay gi di le soleil tamit loolu xëy dellu si waat wax ci président Macky Sall mi nga xam ne bu doon sagoom mhm. crise gi am fële ci eh, ci diggante Israël ak Palestine daal dañ ko toog waxtaanee ndax jàpp ne amul ñàkk waxtaan rek am noonu la ko yéenekaay gi di la sooy xëy fi sax yéenekaay la ko yéenekaay gi moom mbër la moo xam ne kenn mënu koo natt fenn fu neex lay génnee noonu la ko yéenekaay gi Euh, di suñu làmb xëy fësal Abdoulaye. maa ngi euh, fës na ci euh, baatu askan wi xëtu yéenekaay yi Seydina Omar Ba ñu ngi lay jaajëfal ci kóolute beeg ànd beeg Walfadjri naka waa télé. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te aju si réew mi ak ci réew.